asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu aouzubillah bisimillah inna waliyallah barkeb Sëriñ Tuubaa tedd ngay maam Cheikh Ibra seen bokkum taalibe Mouhamed Moustapha Seck moom Sëriñ Cheikh Fall borom digal moo dellu siwaat ànd ak yéen ci si téereb maam Cheikh Ibra bii mu tudde Jazbul Murid maam Cheikh Ibra nag tey dafa dikk ngir jàngale julli faslun fi salaati ci kon képp koo xam ni da ngaa naw si julli ba nga yaakaar si julli eh, teewlul nag maam Cheikh Ibra nii mu yaakaaree julli ni ci la yàlla yàllay fayee su fekkee meloo melokaan wi mu wax nag bu la neexee dem seetaat sa bopp te góorlu bu dee nag yaa nga woon si yoon wax nga làbbali saw fas bu fekkee nag yaa ngi jéem ak mbaax waaye nag bul dingat maam Cheikh nee fas faslun fi salaati lii buntu la ci julli wasalaatu naka julli fa aqimha na ngeen ko taxawal moom julli bi niyatin mu ànd ak yéene kon julli dañ koy taxawal waaw bi niyatin na ànd ak yéene waaw waaye maa ngi def ànd ak yi wala boog naa dem rek ñu jàppale ma ci gaa yi ne ne ma maa ngi koy def wala ma ci circonstance mbooloo ma jóg ma ànd ci ak ñoom nee na loolu bu mu la ko tax a def bind niyatin na ànd ak xabla takbiratin bala ngaa kabar wajaba moom day war moom sax yéen a ja bi xalilin diir bu gàtt laata kabar aw ma ahoo wala yéen a ja ànd kabar ga waat xilha bayna hamzatillah war ra minan akbar mu ngi jàngale nan lañ war a dugale yéene <laughs> lu sew la mu ne wa adxilha na nga dugal yéene ji bayna hamzatillahi ci tikkant gi nekk ci allahu tikkant gi nekk ci allahu war raa min akbar ak mujj ci akbar boo ne allahu alif googu tikkant googu allahu akbar ak gi ci mujj diggante boobu ngay dugal si yéene dégg lu jafe la wal iqaamatu maam Cheikh nee na li xaam sunnatun sunna la fi salaati ci julli li xaam wal xutbatu xutba nag li ahli salaatil jumaati ñi nga xam ne ñoo julli ajjuma mustahabatun lu ñu sopp la lool lool ba sopp nañ ca lool li tasalli dunya ngir nit ki mën a summi ci àddina wama fiha ak lu ca aju kon bu ñuy xutbaati nañu xutba actualité ak waar nit ñi delloo leen ci seen borom bañ a leexu bañ a sànni traak bañ a gaaral kenn te wax li yàlla bëgg maa xadratil qalbi te seen xol nag di teew lu julli ay na ci julli ji ci jàkk ji di xutba di keneen koo xam ne jotewu leen dara loolu maam Cheikh neen da ngeen ko moytu dañuy bàyyi lañ war a wax bàyyi liñ war a wax ah, di wax ci yoo xam ne daanaka rek ak tooñ lay mujju nduru maam Cheikh nee na maa xadratil xal bi eh teewal leen seen xol ci jàkk yi ak jumaa yi wal badan seen jëmm yi na ne ci jàkk ji jëmm yi na teew kaman yaraa rabbahu nit ki ko ku gis boromam waaw kaman yaraara boxoo nee na boo nekkee ci jàkk wala jumaa melal ne yaa ngi gis yàlla wayu naa jiixi te déyalante ak moom na mel ne yaa ngi waxante ak yàlla wala takun qaimal jasad maam Cheikh na bul taxawal sa jëmm rek wal qalbu yaduru fii xayrillaah fekk xol baa ngi wëndeelu ci mbedd mi wala mu ne bul taxawal sa jëmm ne yëng nag ci jàkk ji wal xalbu sa xol bee ya duuru fii xayrillaahi nekk ci lu dul yàlla taxaalaa mi aji kawe wa rasulihi ak bu yonentam alayhi salaam yàlla jàmm yàlla nekk ci moom yàlla ak yonent bi doo nga war a xalaat boo mënta bañ a xalaat wa dan maam see nee na bàyyil wax zal na nga sori fudula dunya caaxaan àddina yi maa tafakkurin fi rawatina sax ngay xalaat mbirum àdduna waaw ne ci biir jàkk di xalaat lu ne nag ak teg diil booy teg diil ak boo génnee ci jan jong ma nga war a jëm ak cent mille francs jàmbur yoo war war a fel barki Sëñ Tuubaa loolu doo nga am ci réew mi nag caaxaan rek waaw leneen gis ci ilimaan yoo xam ne day yaru lool baax lool waaye lu dëng lu luub lu ne moo ko luubal xaalisu jàkk ji sax da koy rawale te bàyyiwul jong may jàmbur yi te bu dikkee mooy dàq waare ak col nag moom buñ ci àttee rek buñ demee ci yàlla xam ne ndeke lee loolu du dëgg kon daan ko bàyyi te li ma xëy yi nafeq yi dañoo bari lool waaw su ko defee nag ñu ma dugg sax ci détail ñu nitam waaye ñu wax ngir yàlla rek maam Cheikh nee na bal tafakkar li mën a am daal mooy li fi nekk daal mooy xalaatal boo mënta bañ a xalaat bokk fi umuril laaxirati ci sa mbiri àllaaxira xalaatal ci loolu waaye ni ci biir julli gi waaw léeg ngay xalaat sax moom bu ma génnee waxtu wi xam naa war na ma mën a jaar ci ndaw si añ fa naan fa ndox mu sedd door a jàll te fekk loolu lewu la te xam nañ ci lu bari loo xam ne boo ko waxee àdduna tukki waaw léeg dañuy xam ci ab koñ kër yoo xam ne auberge lay doon duñ ci wax romb julli jiwul ñuy nekk ca kooka di ci xutba di ci wax ci ak ñàkk julleem moom te koñ bañ dëkk gis nañ fa kër goo xam ne euh, moom moom maison de passe lay doon te duñ ci wax te loolu moo xew ci réew mi fi mu toll nii kër yi kër yi ndakaaru yëpp yi ci ëpp ay la te kenn du ci xutba kenn du ci wax hmm? kon ñu jàll maam Cheikh nee na wada wasra bi munaajaati yi nanga nga sottaxlu sottaxlu mooy nanga dékk sa xolub nopp bi mu naa jaatal rahmaan ci dëkkërle ak yàlla am connexion ak yàlla raajiyan nay la fadlihi ba'da salaam maam Cheikh nee na nga yaakaar nag ci yàlla boo sëlmalee boo ne asalaamaaleykum sëlmal nee na war ngaa mën a waat ne am nga ngërëmul yàlla ci julli ji nga def ba'da salaam ginnaaw sëlmal ga bi jaahi seexi yi ci barkeb sa sëriñ nag foofu la wuuteeg gaa ñi moom nee na lu nit di wut ci yàlla bu ci julli ci barkeb si sëriñ nga ko war a teg ngir suñu borom war laa fay loolu mooy bunt bi mu doon indi ci julli ñu ngi taxaw loon di foofu ci julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.